تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل والسلام على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه أجمعين mbokk yi ñu déglu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci barab bu màgg bi waaye di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi di ñaan suñu boroom mu nangul ñu mbooleem xeetu jàmm yàlla yi nga xam ne war nañu tan di ko def wala ñoo tàbbi ci waxtaan wi rek ñu joxe mbokk yi kon mu xaw wi maatu takliif loolu mooy suñu waxtaanu tey muqawimaatu e eh? muqawimaatu taklif mooy sunu borom bi ñu sàkk dafa am yooyu da ko togg ab jullit ba pare sàkkaat yeneen yëf yëfaat yooyu moo koy dimbale moom jullit bi ngir mu mën a matale yooyee ko borom bi togg loolu lañuy tuddee mu xawimaat ak taklif wala kenn yi nga xam ne moo taawu moo taawu mboolem lu yàlla sëf mboolem lu yàlla sëf ab jaamam ci juróom-ñaari tomb lañ koy def incha allah bu njëkk bi mooy dinañ wax muqawim bi njëkk te mooy alkawn ñaareel bi mooy al ñetteel bi mooy al fitratu al isla al insaniya ñeenteel ba mooy al shahawaat juróomeel ba mooy al tashriic juróom-benneel mooy xurriyatu lixtiyaar juróom-ñaareel ba mooy al zaman ba may teg ci seen kaw ñoom ñépp mu nekk ca bopp ba mooy tamhiid lan mooy tamhiid mooy li ma lay taalee li ma lay taayee ci wax ji jublu ca mu yombalal ma ñiy déglu seenu dégg li ma jubloo wax donte ne du nekk luy war a jub waaye ma yéene ko ca kon bu njëkk bi te mooy al muqaddima maa ngi koy dooree ci al insaanu wa adraka wa adraka mal insaan ndax buñ ne togg jëf xel yépp war nañoo dem ci ne nit a tax nuy wax waaye mala kenn du ko togg ay jëf doomu boobu ñuy togg jëf mooy kan huwa maxluuqu al mooy ki yàlla bind ba yeggale am yooyu da ko koo togg e, ngir ne na wàccoog moom bokk na ca yooya xamlul amaana mu wékk ko mu gàll ko mu war a sàmm li ñu tuddee kóllëre aouzu billahi min asheytaan arrajim alquran moo ñu koy nettali inna aradna al amaanata ala alsamawati ard fa na ay yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insaanu li tax innahu kaana daluman jahula loolu mooy tegtale ne euh, kóllëre lu diis a diis la ndax asamaan la ko suñu borom njëkk gaaral gaaral ko suuf ñoom ñëpp ñu gàntal ngir ne attanuñu ko doomu aadama ne man attan naa ko suñu borom daal di ko koy gàll looloo tax wàccoog amaana war na doomu bu nekk kan mooy doomu aadama wér na ne sax na ne huwa al maxluuqul mukarram wax naa léegi maxluuqul mukallaf waaye ma teg ca al maxluuqu al mooy ki nga xam ne mbindaafoon la moom yàlla da koo teral teraa nga joj kenn fekk ko ca kenn fekk ko ca alquran moo ñu koy nettali wa laqad karramna bani aadam wa xamalnaahum fi lbarri walbaxr wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila israa juróom-ñeent fukk juróom-ñaar fukkeelu aaya waxaat ne wa saqara lakum ma fi samawati wa ma fi l ard jamian minhu inna fi dalika la ayatin li xawmi yatafakkaruun ci jaasiya aaya yooyu yëpp day tegtale ne al insaanu huwa al maxluuqu ku yàlla teral wér na ne feddali na ne na ne doomu aadama ci boppam huwa al maxluuqu bil ibaada mooy kii yàlla bind ba pare togg ko mbir mbir mu rëy a rëy te mooy mbirum jaamu yàlla suñu boroom wax ci alquran wa ma xalaqatul jinna wal insa illa liyabudun zariyat juróom fukk ak juróom benn lan mooy al ibada mën nañ ko tënk ci ñetti ñetti tomb bu njëkk ba mooy an taarif allah yàlla nee na farataalu ma jullit bi mu jaamu ma lu dul ne mu xam ma képp an taarif allah awalan saaneen an tuti allah nee na ngir nga topp ko moom borom bi loolu rek a tax mu farataal jaamu yàlla ci julli bi ngir ne mu topp yàlla saalisan ñetteel ba an tasaada bi qurbihi ay bi qurbin min allah mooy mu texe mu tonow mu bénéfice wu tey ëllëg waaye ci jegeñ jegeñ lu boromam ba far ko jege wala ci beneen ibaara ci beneen déggin ci lan mooy jaamu yàlla mën nañ wax ne jaamu yàlla ñetti université la wala faculté yett la faculté bu njëkk mooy kulliyatun maarifiya kulliya maarifiya mooy nooy kulliya boobu lan lañu fay jàngal université boobu wala faculté boobu mooy nooy fexee ba xam yàlla maarifatullah saaneen wa kulliyatu sulukiya mooy faculté boo xamante ne bi lan lañ fay tabax nit ki jikkoom xolam damiram la tabax ruuxam beneen bi mooy kulliyatu jamaliya mooy ñetteelu faculté bi te mooy naka lañuy tabaxee nit ki ba lépp lu mu jëf ci wetu jaamu yàlla mu nekk lu mucc ayib ci cat set wecc ci lépp lu aju ci li ñuy tuddee njistal wala yéen niroog moom mën nañu wax daal ne al kulliya maarifiya mooy sabab kulliya sulukiya maanaam boo duggee ci faculté bi ñuy tuddee faculté maarifiya mooy bi ngay xamee yàlla soo fa génnee yaa ngi yore Euh, diplôme bu ñuy tuddee diplôme bu mucc ayib ci wàllu jikko ju set jikko ju mucc ayib léegi alkulliya jamaaliya nag mooy résultat ci alkulliya assuluki te loolu mooy nga xam yàlla topp ko te texe ci jege ko àdduna ak alaxira moo tax suñu borom digal nu waaye toggu nu jëf ci nu fexe ba sunuy bakkan ñu gupp leen ba ñu set ndax bu ñu xamalee suñuy bakkan suñu borom wala boromam togg ko jaamu yàlla yi nga xam ne moom lañu suñu borom digal jegeñ loo ko borom bi ci loolu lañuy ñuy atteindre objectif bi nga xamante ne bi moo taxoon suñu borom bi nunu te mooy tax loolaa taxoon mu andi ñu ci kaw suuf euh, suñu borom wax ko ci alquran qad aflaha man tadakka ki texe mooy ki am victoire mooy ki nga xam ne fexe na ba bakkanam mu gupp ko mu set ba di ko digal li ko boromam sant suratul ala aaya fukk ak ñeent mbokk yi loolu laa defoon muqaddima te mooy laytaay ci biir li ma bëggoon a wax ma fàttali ne sunu tem mooy muqawimaatu at taklif muqawimaat yooyu nag kenn yooyu wala ponk yooyu di dimbali nit ki ci li ko yàlla digal lépp ba ca njëkk mooy alkawnu alkawnu mën naa ne mooy àdduna ndax moo ëmb lépp lu aju ci biir mën nga jël asamaan asamaan ci kaw nu la bokk boo jëlee asamaan ak ni mu toll ak ni mu soree fi nun ak yi aju ci moom ci ay niir yi aju ci moom ci ay biddiw ak biddiw ya nanu toll ak biddiw bu nekk fonction bi mu yor jëlal jant bi ak li muy liggéey nga xam ne day wër boppam boole ko di wër suuf te ne ca kaw te saa yu de tàmbalee fi mu tàmbalee ba dellusiwaat ci li muy tekki mooy at jot na te moom ma ca kaw asamaan te ne dañuy wër day wër suuf di wëraale boppam gis nga weer wi ak liggéeyam yooyu yëpp ak li ñuy tuddee suuf ak li ne ci kawam lépp jëlal li ñuy tuddee ay montagnes yi suñu borom monté ci kawam jëlal dex yi jëlal jën yi jëlal njanaaw yi naaw ak yeneeni xeet yu bari yooyu ci ay gàncax kenn mënu leen a lim ak yeneen mbindaafon yooyu doom bàyyi ma lañ kenn mënu leen lim yëpp ñu nekk ci kaw suuf loola am na lu muy tekki am na lu muy junj ñetti baar rek lay wax yooyu yëpp ma wax ñetti baar rek lay wax bu njëkk mooy yantiqu bi anna allaha mawjudun yooyu ma lim yëpp ñetti baat lay wax baat bi njëkk bi mooy day wane ne yàlla kenn ku existe la moom rek a am keneen amul ndax ku am ku nekk ci amuk yàlla gum la amalee ca nga am te moom kenn amalu ko kon day tegtale ne yàlla rek moo am leneen amul beneen baat bi mooy yantiqu bi anna allaha waaxid day tegtale day junj ne yàlla rek ay kenn mooy kott mooy dong mooy kóog amul keneen ñetteel ba yantaqib an allaha kaamil moom rek a mat ku dul moom danga ngaa ni aw ñett yàlla rek mooy ki mat ñetti baat yooyu li ma junj léegi loolu lay tegtale moom lay signifié suñu yaakaar cheikhul xadim junj na ko ci am mbindam imaanukum bi rabbikum tasdiqu bi annahu wujuduhu xaqiqu wa waxidun ma in lahu min saani walam yazal jalla azima shaani loolu la suñ tubaa suñu yaakaar wax pour firndeel ne suñu borom kenn képp la kenn kott la kenn dong la waaye moom rek a am ba dara amagut te bu fi ñëpp jógee ko moom mooy continuer di am kon moom rek a am moom rek a mat moom rek a kenn loolu lay dund adduna bi ñu nekk dafay feeñal turu yàlla di feeñal màggaayu suñu borom ak ay melokaanam kon soo bëggee xam yàlla dangay gis ne kawnu bi muy la am àdduna bi moo lay tegtal moo lay junju am suñu borom inna fi xalqi samaawaati wal ardi wa ixtilaafi leyli wan nahaari la aayaatin li ulil albaab ci suuratu Ali Imran aaya téeméer ak juróom-ñeent suñu borom di wax ne asamaan si mu bind te juróom-ñaar lañu boole kook suuf ñoom ñëpp ñu nekk juróom-ñaar mu bind guddeeg bëccëg wuutale leen ay doxin wuutale leen nu mu leen euh, tegee ci ay barab ak ay fonction yu mu leen sant loolu daal ku bëgg a waaru ku ne sa xel war na caa mën dem nga jommi mu dellu waxaat wa min ayaatihi xalqu samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabba wa huwa wa jamcihim ida yashaau qadir yooyu yëpp suñu borom mi ngi ci wane ay kimtaan yooyu bind na ko teg ko ci sa kanam bëggoon boo ci xoolee mu delloo la ci moom nga mën cee waaroo bu baax a baax wa min ayaatihi manaamukum bil leyli wan nahaar wa ibtigaaukum min fadlihi inda fi dalika la ayaatil li qawmi yasmaun suratu rum aaya ñaar fukk ak ñett yooyu yëpp suñu borom loolu la ci jublu pour nit ki di xalam di xalaat kiimtaan yi mu bind loo ci mën a jëlee loo ci mën a jàngatee bul jàpp rek ne li ngay gis muy dox wala li ngay gis mu tëdd na nemm rek du nooy wala du wax nga jàpp ne amul lu tax suñu borom bind ko loo gis rek suñu borom am na lu tax mu bind loolee mën naa la ci jox ay misaal yu baree bari waaye naa ci jël benn nañ jël benn mbindaafoon bu doyee di lool nga xam ne yow tàpp rek nga ci xam mu faatu mu yoo ku ne yoo liñ ci xam bëri na waaye li ëpp ci liñ koy def mooy faat ko su la su la su la toŋee nga nga tàpp ko mu faatu bu nekkee ci barab yoo nekk nga pompe ke ñoom ñëpp ñu bokk faatu yow loolu nga ci xam ngir ne daa am lëj le gune ci moom guy bawoo ci moom jëm si yow loolu rek nga ci xam waaye suñu borom nee na la ci alquran awma kersa mukk pour wan la wala jox la misaal ci benn yoo boo xam ne maa ko bind mu tuuti lool. yooy lool soof lool ci gisin waaye la ne ca biir soo ko jàngatee da nga xam ne kiimaani borom bi rëy na lool jox doy na sëkk nit ki mën cee dellu ngir xalaat inna allaha laa yastaxyi an yadriba masalam maa baudatan fa maa fawqaha ci suuratul baqara aay ñaar fukk ak juróom benn suñu borom di wax ne awma kersa pour jox leen misaal ci yow lu tax mooy boroom xam-xam yi nee nañu bopp yoo yoo jëmmam ji yépp nga xam ne daanaka sa li gën a tuuti sa jëmm ji moo këpp bopp yoo bi rek boroom xam-xam yi nee nañu am na téeméeri bët téeméeri bët yoo xam ne moo nekk ci bopp yoo ak li muy ndaw ndaw noonu nga ko gis téeméeri bët bët bu ci nekk ak li muy liggéey dënnam bi nga xam ne mooy ndënnam su tuuti soo su nga gis tam sax ci jëmmam ju tuuti jooju nga gis kiimaani suñ borom ya ya ca feeñ bokk na ca ci biir dënnam boobule am na ñetti xol moom yoo te yow doomu aadama ak ni nga toll benn xol képp la la yàlla bind moom la la moom la la dénk yow am na ñetti xol benn xol bi mu ñu ngi koy tuddee xalbun markadi yi mooy xol bi nga xam ne mooy jiite yeneen xol yi ci des yëpp ci dënn bi la nekk yeneen yi ci des bii ci laafu ndeyjoor bi la nekk beneen bi ci des mi ngi ci laafu càmmoñ bi ñetti xol yooyu di fonctionner benn bu ci nekk ak la tax suñu borom bind ko ci yoo muy fëyi fëyi di naaw waxtu nekk euh, bi nga xam ne moom la suñu borom def ci yoo moomu wax nañ ne euh, fafal naaw yi gën a xew ci jamono te gën a xew te gën a gaaw te mën nañ ci tuddee benn bu ñuy tudd ñëpp ñëpp war nañ ko mën a xam muy radar ci yi gën a sophistiqué la bokk maanaam suñu borom machine bi mu def ci yoo ci dënnam boobule nekkul ci avion yooyu nga xam ne ñooy xotti ci biir asamaan yi di naaw di dem fenn fu nekk mu neex leen yoo mu ndaw moom nga gis di ko xeeb suñu borom defal na ko lool moom du xool. mbir yi ci ni mu melokaanoo wala couleur yi mu am waaye lenn lu nekk moom mi ngi koy xamee ci tàngaayu li nga doon yow nit boo nekkee ci biir néeg di nelaw fay sab làmp mu lëndëm këriis lay tax yow mën a waaxu ba ci yow di la matt ak kiit ngay féqatalu maanaam ci sa tàngaaru yaram ci tàngaaru yaram wi nga xam ne moom nga yor yow ci lay appuyé wu pour mën a matt euh, xam fi nga nekk mu mën la fa fekk matt la yow moomu nga gis di ko xeeb am na appareil boo xamante ne bi ci lay mën a seggee li ñu tuddee deret deret ji muy manque ci doomu bi muy nàmp ngir jariñoo ko moom du doomu aadama yépp lay nàmp seeni deret waaye doomu aadama ju mu bëgg a nàmp deretam dana ko am na appareil bu muy samp ci moom xool ba xam jan jas nag tigee deret jooju ba xam baax na wala baaxut comme ni kii nga xam ne waa ji bu ñu ko bëggee may deret danañ ko danañ sol ay appareil yu wane ne kii deretam baax na yàlla defal na ko yoo du manque benn deret lu dul ne deret jooju daa méngoog moom deret ji xam ne moom la war a dundee moom yow moom nga xeeb yàlla defal na ko appareil boo xam ne balaa moo màtt kenn fi mu ko nar a màtt euh, daf koy anesthésier mooy daf koy deewal door koo pikir jël fa lam fay jël ba noppi nga xam ne tooke ju am ca loola mu nam ma jël moom du ko topp bu dee daf koy jariñoo nga xeeb ko lool yàlla def ci moom yu mel noonu kon loolu kiimaan la goo xam ne doomu aadama bi su ko xamee war naa xam ne yàlla bindu dara ci hasard kon mën nañu wax ne àdduna bi ahadu muqawimaatu taklif adduna ci boppam benn la ci ponk yi nga xam ne nit ki mën na cee jaaree lii ko yàlla digal yëpp mu mën cee def ni mu ko war a defee euh, te mu amal ko njariñ kon mën nañu suñ borom daf ñoo tàggatal ñaari tàggat yu am solo muy tasxiiru taarifin wa tasxiiru takrim daf ñu tàggatal naka la ñuy mën a xamee ba pare tàggatal nu nag ginnaaw bu ñu xamee ñun suñ teraanga naka lañ ko war a mën a jariñoo ma joxe ci ñaari taxawaay buñ ne mooy an tu'min buñ ne la suñ borom dalaa tàggatal luy tax nga mën a xam yàlla mooy daf la wan ne gëm yàlla war na ci yow beneen bi mooy buñ ne la suñ borom dalaa tàggatal tasxiir boo xam ne takrim la mooy an tashkura mooy nga sant yàlla mi la bind dalaa tàggatal takri tasxiiru takrimin ngir nga sant waaye daf laa tàggatal wala tasxiiru taarifin waaye ngir nga gëm yàlla li koy tu'min kon soo gëmee yàlla dëggi-dëggi ni nga ko war a gëmee sant borom bi ci xéewal yi mu la defal dëggi-dëggi ni nga a sante kon li muy tegtale ci jullit boobule mooy li ko yàlla santoon lépp def na ko li taxoon moom mu ñëw ci kaw suuf yëpp tamit def na ko suñ borom wax na ko ci alquran wa maa yafaalu laahu bi aadabikum in zakartum wa amantum wa kaana laahu shakiran shakiran alima ci suratu nisa aaya téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñaar mbokk yi loolu kon benn la ci yi ñuy tuddee mu xawimaatu taklif muy alkawnatu mooy adduna ak yi ci biiram damaa jël misaal ci yoo rek waaye mënoon nañ jël misaal ci nit wala sa jëmm ji sax boo ko jëloon say bët say tànk say loxo kenn ku ci nekk lenn lu ci nekk soo ko jëloon tas ko da nga ci fekk kiimaan yu bëree bëri te bis bu set nga di ko jëfandikoo te doo ci bàyyi xel yeneen bindaa fon yi suñu borom bind yëpp yow rek laa ci jël waaye boo ci jëloon noonu kazalika nabaataat yi muy gàncax yi boo ci jëloon tamit noonu lay mel da ngay dem ba yàggar ne tax lii suñu borom bind lii day yéeme na jëlal misaal ci lem doom bàyyi ma bi koy produire ay tuur dugubam képp lay lay lay lay jëfandikoo génnee ko ngir yow doomu aadama nga di ko jël ngir jëfandikoo ko ay tuur dugub ci benn doom bàyyi ma loolu tamit soo ci bàyyee xel danga xam ne li tax suñu borom bàyyi indi ko ca alquran nekkul lu lu ndaw waaye lu rëy a la pour nit ñi waaroo ci muy suratu nam li ñaareel bi mooy al aql suñu borom may na ku ne am xel waaye lu tax mu may la ko da caa jublu nga def ko muy lu lay dimbale ci lépp lool suñu borom teg na la ko ci wàllu jaamu yàlla aslu diin aslun fi diin cosaan la ci diine muy am xel xel cosaanal diine la mbokk yi sunu borom daf koy fàttali di fàttali branche yi nga xam ne moo moo soqi ko banqaas yi soqi ko ci xel suñu borom sax daf koy fàttali ci biir alquran wax na ne lu ëpp junni lu ëpp junni ci alquran boo ca fe demee daa ca fekk ay baat yooyu day tegtale am xel suñu borom di ko junju lu ci jublu daa bëgg ñu bàyyi xel yu bëri bëri yooyu muy tudd ci biir alquran du dafa am jot waaye daa bëgg nit ñi bàyyi ci xel rek te di ko romb di bay waxtu wu nekk wax na ci yu bari am na ci boo xam ne dafa naan afala yaqiloon ndax yéen doo leen xellu du ngeen ubbi seen xel yi di ci xalaat ci sóoratu yaasin aaya juróom-benn fukk ak juróom-ñett afalaa taqiloon bokkul ak afala yaqiloon afala taqiloon ci sóoratul baqara aaya fan ñeent fukk juróom-ñeent mu ne ndax du ngeen am xel li qawmi yatafakkaruun li qawmi yatafakkaruun ci aaya ci suratu yunus aaya ñaar fukk ak ñeent xanaa yéen du ngeen xalaat te kenn ku ne xam ne ab tànk du xalaat waaye xel mooy xalaat li qawmin yazakkaruun ma ne lu tax yéen doo leen fàttali ko borom bi nga xam ne mooy ki bindoon ci suratu lanaam aaya téeméer ak ñaar fukk juróom-benn te kenn ku ne xam ne ne xel mooy fàttaliku ndax li tax doomu aadama man jàng dañ ne li tax doomu aadama man jàng te bàyyi ma mënul jàng parce que doomu aadama day fàttaliku lu paase woon démb wala lu paase woon ay ati at ko fàttaliku loolu machine boobu ko yàlla bindal ba mu mën a fàttaliku lu weesu moo tax moom mu mën jàng kon lu tax doo leen fàttaliku seen borom yooyu yëpp day dellu ci xel suñu borom wax na ci aayaat yu bëree bëri wax naa ne ëpp na lu mat junni machine bu doy waar boobu nag nga xam ne suñu borom daf na koo dénk daa wax ne jaadu na yàlla na xel moomu soo demee ba di ko jariñoo mbaa nga di ko jëfandikoo nga dëppale kook sharia mi abil mi am muy téeméer ci ron téeméer maanaam téeméer ci ron téeméer maanaam cent pour cent ndax charia al islaamiya dafa bàyyi koo fa suñ borom mooy ki ko rëdd du doomu aadama moo décrété charia waaye yàlla mooy ki ko rëdd naam waaye xel tamit miqyaasun aw daahu llahu fiina bi yàlla rëddee charia al islaamiya yónni ko ku tedd kooku ci nun waaye daa jëlaat beneen élément bu am solo muy nattukaayu loolee mu yónni ci ñun te def ko ci ñun muy am xel nattukaay la xel nattukaay la ci sharia ginnaaw bu yàlla jëlee sharia mu bàyyi foo bàyyi ko ci moom loolu moo tax ñaari ñooñu mënuñoo teqali ko sharia xel moo koy natt wala ci moom la ñuy natt ci lañuy ñuy xiyaas li ñuy tuddee sharia al islaamia ñaari bànqaas yoo xam ne seen cosaan lenn la te ñàkk mukk ñoom ñaan ñu dëppoo ay xalaat dëppoo ay mbir moo tax lu sharia rëdd su ko sam xel nanguwul rek booy boo xam ne sam xel feebar na lépp lu sam xel xalaat su ko sharia islamiya nanguwul rek xamal na sam xel daa daa tawat waaye ñoom ñaar dañoo war a ànd dëppoo ci lépp xel kan mooy ki ko sàkk suñ borom te li ñu tuddee an naqlu te mooy naq ñoo sharia wahyun min allah suñ borom moo ko wàccee kon ñoom ñaar ñoo bokk fu ñu bàyyi ko munta ñàkk mukk ñu dëppoo moo tax benn boroom xam-xam wala boroom xam-xam yi am nañu wax ne ma min insanin yaamalu li dunya wa yansa al axira illa wa huwa fi lxaqiqati majnun amul benn doomu boo xam ne daa nekk ci àdduna di jëfandikoo la muy jëfandikoo lu ko soob ci àdduna rek mu jëf te fàttee jëf lu ko yóbbu alaxira may ko fa jàmm mu fàtte loolu ne ci àdduna rek di yaataa fàtte ëllëg nee na amul kenn ku koy def ci àdduna lu dul ne dëgg-dëgg bu ñu seetee mbiram dañu xam ne waa jooju ab daf la donte ne gis nañ ne moom mboolem diplôme yi gën a kawe ci àdduna am na leen jëlal licence wala nga am ñetti licence am na ñoo xam ne yàlla may na leen ci bopp ñu seen jàng yegg ci ñu am ñetti licence yu bokkul waaye donte ne ñetti licence am nga ko wala amal vingt muy ñaar fukki licence li feeg yaa ngi dundal àdduna képp fàtte alaaxira dañ lay jàppee yow koo xam ne ab dof nga ab dof mooy koo xam ne am xel amatul ci moom looloo tax ñu ne dof du wëccu ndax xel ma mooy wàccu sunu borom wax ne kooku kon nuñ koy tuddee ginnaaw moom am na licence te cim jàng la ko jëlee te jàng xel a koy def lu tax ñu tudd ko tuddee dof kon ñu ne daa jël addunaam jëndee ko alaaxiraam moo tax ñu tuddee ko dof waa kon lim def noonu ba am diplôme yooyu ni muy tudd ñu ne zaka yeewu na cim xel ci àdduna waaye daa fàtte àdduna daa fàtte alaaxira looloo tax mu tudd euh, koo xam ne am xelam ñaw na ci wet waaye ab dof la ci wet ndax amutam xel suñ borom wax ko ci alquran audu billahi min ashaitan rajim bismillahi arrahmani arrahim nuun wal qalam wa ma yasturuun suñ borom di giñ ci e-, e-, xaraf bu daywaar boobu ak ci xalima waaye ak la muy yuut ndax xalima goo gis ku nekk bu yuutul amul njariñ waaye muy muy giñ moom borom bi subhanahu wa taala ci xalimat mooy big mooy pilim waaye yëmu ca waaye ak la muy yuut mooy la muy bind moom xalima googu kon li muy tegtale mooy jàng am na solo te xel a koy def ma anta bi ni'mat rabbika bi majnun waaw bi majnun li tax nga doon ab dof nag mooy teraanga ji la suñu borom defal cim xel ba nga mën a jàng waroon na laa mën a may tamit nga xam ne àdduna du kër jaaruwaay la nga nga kër këri fi ngir ëllëg te bana kër këri rek ngir àdduna kon day war nga gëm yàlla war nga fas ci sa xol ne bépp fepp boo mën a jëfandikoo ci àdduna moo xam da ñàkk a julli moo xam da ngaa ñàkk woor moo xam da def xeeti mooy yàlla goo mën a def na la wóor ne rek la muy tudd mooy waaju lab ci géejug bàkkaar ñu di ko tuddee dof ab kannas bu rëy te yooyee lum ci doon aw fepp suuf la ci mooy yàlla ak fépp suuf la ci lu doon ci lu wuuteeg li yàlla digle danañ la ko laaj ëllëg kanam borom bi subhaanahu wa taala fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin charran yara kenn ku nekk war a bàyyi xel lool kon al aqlu jaala allahu lid diini wa lid dunya imaada suñ borom kon daa def xel muy cosaanal diine muy cosaanal diine waaye muy kenn boo xam ne nit ki da cee war a sukkandiku walla muy euh, yet woo xam ne daf ci sukkootu ngir mën a tabax ëllëgam ginnaaw bu tabaxee àddunaam ba noppi moo tax euh, ci waykat yu mag yi am na kenn ku wax ne xay xayrul mawaahibi al aqlu xayrul mawaahibi al aqlu nee na li yàlla di may lépp la ca gën mooy am xel bu rafetee waaye wa charrul masaibi al jahlu nee na mboolem musiba yi yàlla amal ci àdduna ba ca gën a bon mooy nit ku xamul dara mooy ku réeree diineem réeree boppam réeree borom bi ndax saa yoo réeree borom bi mooy réeree nga diine te ku réeree diine la ëpp boo ko seete daa réeree boppam ba noppi. am na beneen waykat bu wax lu am solo lu niroog loolu yazinul fata fi nnaasi sixatul aqli wa in kaana siqatu sixatu aqlihi wa in kaana maxduran alayhi makasibuhu loolu la waa jooju wax nee na waa jaa ngi nii taaru lool ci gisin ci waxin ci jëfin ci kaw lu tax ndax xelam mu ñëw su waxee ñu ne oh waa ji de aka baax aka yow aka nangam ngir xel maa gii de wax ja mu rafet lool donte ne moom su génnee foofa ab safaan rek lay jëfandikoo waaye xel mi ci kaw moom da koy taaral bañ jàppee ko nit ku baax waaye kasaalika safaan bi tamit léeg-léeg waa xelam gàtt lool ñagas lool lëndëm lool lu mu xelaat ñu ne acam loola ca kaw la waaye ci suuf bu jëfee rek suñ borom nangu mbokk yi kon xel lépp moom ci moom la aju nañ ci bàyyi xel mooy ñaareelu mu maat bi kon ñetteelu mu qawimaatul taklif mooy al fitratu al dana bokk bokk na ci li nga xam ne day dimbale nit kii ngir li ko suñ borom togg moom jullit bi mu mën koo matal ci al fitra al loolu loolu moo bind doomu aadama ci fitra aliya fitra aliya la ko bind maanaam mu set wecc weex tàll amul benn tâche bi muy ñëw ci àdduna moom moom moom doomu aadama bi sun borom ne fa aqim wajhaka liddiini xanifa fitrata allahi allati fatara annaasa ci fanweer sun borom ne man maay ki bind doomu aadama ci fitra salima amul benn tâche bi muy ñëw ci àdduna kon lu ko dal ginaaw gi moo ko yóbbee boppam waaye man ci fitra laa ko bind fa aqim jooju nag mooy bi gën a am solo mooy ma jubbanti teg ko ci aw yoon wu ne xocc ne ko wéyal beneen bi mooy mu di ko fàttali fu mu toll jaamu yàlla googu muy def naka la ko war a defee muy taatun tawiya mamzujatun bi mahabbatin qalbiya lay doon maanaam topp yàlla goo xam ne yaay coobarewu ci sa bopp ngir xam ne ci loolu lañ la bind yow nga jaxase ko bëgg yàlla goo xam ne ci reeni xol lay sax ku topp yàlla te bëggoo ko dañoo wax ne jaamuwoo ko maanaam waa ji topp yàlla rek te ak bëggam yàlla wérut nee nañ jaamuwul waaye ku bëgg yàlla te toppoo ko nee nañ sax jaamu wérut kon lu am mooy tawa taatun tawiya mamzujatun bi mahabbatin qalbiya asaasuha maarifatun yaqiniya tufdi ila saadatin abadiya loolu la mooy jaamu yàlla goo xam ne yaa koy coobarewu ginnaaw boo xamee ne looloo tax ñu andi la fi nga jaxase kook euh, euh, bëgg yàlla gu sax ci reeni xol te loola mooy cosaanal mooy fondation bëgg goo xam ne euh, xam yàlla gu wér muy maarifa yaqiniya goo xam ne day jural borom wommat ko jëmee ko ci asaada al abadiya muy texeeg àdduna waaye tamit ak ëllëg yowmal qiyaama kon alfitra mooy nga bëgg dëgg nit ki saa yoo xamante ne bii dëgg lay bëgg te di ko jëf di ko wax te di ko nangu bu ñu ko ko waxee na xam ne mi ngi ci fitra ndax ci loolu la ko yàlla bindee woon bañ lu bon bañ neen bëgg aw yiw bañ aw ay bëgg maandu te bañ tooñ te tooñ làmbe loolu jamono léegi bëgg yërmande te bañ a ñagas diis tar métti yooyee mbokk yi moom lañ tuddee fitratu naasi jamian lii ci la yàlla mooy mboolem doomu aadama bu mën a doon léegi nag lu tax nit ñi baax ñi bon ñi sàggan ñi euh, doye di ñi way ñi waye di loolu mu ngi dépendre ci kenn ku nekk nag bi nga changé li la suñ borom bindoon ci fitra boo nga xam ne moom la bindoon nga dem ba léegi mën a tiim nit ko mu dee nga xam ne amatoo yërmande nga xamante ne bi maandootoo nga xamante ne bi da ngaa metti tar nga xamante ne bii dëgg bëggoo ci dara yooyu yëpp ginnaaw bëggatoo ko jàppal ne yow yaa wëlbati ni la yàlla bindee woon waaye ca melokaan yooyu yow ca la la bindee woon hada xutira naasu mbokk yi jamian am na ay ayaat quraan ya yu koy fiddali euh, suñu borom subhaanahu wa taala daa waxoon saxaaba yi toppan ku tedd ki sallallaahu alayhi wa sallam ne leen ndax bég ngeen wala yéen a ngi nii da ngeen a bég lool ci wàccee gi ma wàccee ci yéen alquran wàccee gi ma wàccee ci yéen ay yonent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala taala walladina aataynaahum alkitaaba yafraxuuna bi ma unzila ilayk ba aaya ba jeex ci suratu raad aaya juróom-benn fanweer ak yett juróom-benn lu mu leen ca tegal daf leen wax ne lan moo leen maareloo ñu ne ko ñun daal li tax ñu maare mooy dañoo gis ne suñu bakkan dëppoo naag li sharia al islaami rëdd li ñu yunt bi saa sama indil daal ci téere bii di al alquran dëppoo naag mook suñu bakkan dëppoo naag moo suñu bakkan aayaat yi koy tegtale yu bare bare la wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha suratu shams aaya juróom-ñett ba juróom-benn juróom-ñaar juróom-ñaar ba juróom-ñett am na yaari maana maana bu njëkki mooy lan mooy nit ku nekk boo defee ab safaan balaa la kenn naan la li nga def safaan la yow xam nga ne safaan def nga ko aajowul ñu la koy ñu la koy xamal yow xam nga ko moo tax suñu borom ne balil insaanu ala nafsihi basira moom am na basira bu koy wan ne ko yow kat li nga def du ni balaa ko ko kenn naan ko yow lu tax nga def lii te du du noonu moom xamal na ko boppam muy benn maana beneen maana bi mooy da koo yekkeewal yenkeewal moom borom bi subhanahu wa taala yoon woo xam ne mooy dëgëralal moo koy dëgëralal naka lay def ba ragal yàlla ak naka lay def ba nekk ci weneen yoon wa ca des rek ne nañ bu fekkente ne bi sam xel dalay lay jokkaleeg sa borom kon kay fitra bi la suñu borom bindee woon mooy daal di man laa wan yow lan mooy ak njub nga topp ko waaye lan mooy mooy yàlla wala lan mooy njumte nga bañ caa tàbbi ku tëdd ki salaam tontu woon na ko benn saxaaba bu ñu tuddee Nawaas ni Sam'aan wala Sim'aan loo ci wax ci ba mu koy laaj naan ko diggante albirru muy mbaax ak bàkkaar nu mu demee ku tedd gi saw sam ne ko albirru daal boo bëggee noppale mooy xusnul xuluq waa joo xam ne xolam daa set wecc set wecc loolu mooy mbaax waaye nag nee na ko bàkkaar nag mooy lépp loo xamante ne bi mi ngi ci sa biir bakkan wala sa xol te ba nga koy def bëggoon nit ñi jamono yi nga koy def bëggoon nit ñi di ko seetaan wala ñu di ko gis lépp looy def di ko nëbb rek nee na ko loolu mooy bon Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mbaax mi yaakaar naa ñëpp déggoon nañ mu wax ne lu baax mooy lépp loo xam ne soo koy def boo sañoon nit ñëpp seen yow nga di ko def waaye lu bon nag mooy lépp loo xam ne soo koy def yaa ngay tëju yaa ngay làqatu yaa ngi doon ñaan yàlla kenn ban la caa fekk loolu mooy al ismu waaye loolu al birru kon bi nga xam ne moom lañ bindee doomu aadama amul dara lu ko mën a fees du alal du daraja du xam-xam lu mën a feesal fitra boobu amul ci àdduna benn rek élément moo ko mën a feesal wala yaar walla yet mooy al imaanu billahi taala wa taatuhu wal qurb minhu kese ñett yi ñoo mën a feesal fitra bi yàlla bindeewoon doomu aadama ñoom rek ñoo ko a feesal waa ji lu mu am am ci alal du tax fitra bi ko yàlla bindee bindeewoon fees mënul feesal fitra bi ko yàlla bindeewoon ndem daa am xam-xam ndem daa am daraja ndem daa nangam nangam nangam yooyu ba mu bari lay feetal fitra bi ko yàlla bindoon mooy al imaanu billaahi xaqiqatan gëm yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg gëm yàlla waaye ak topp yàlla dëgg dëgg nañ ko war a toppe waaye tamit ak xeex ngir jageeñ borom bi foo mën a toll ak waxtu mu mën a doon ak foo mën a nekk wa mbokk yi al fitra al ko yàlla bindee muy benn ci muqawimaatu at taklif ñeenteel ba mooy achahawaat ci muqawimaat yu am solo la bokk achahawaat mooy bànneex mën nañ ko wax noonu ci lu Euh, ndeke ndeke bu dul woon ak bànneex yi nu yàlla booleel ndeke ñun duñ duñ war nga war mukk da dañal wuti aljanna mukk ndeke te du am te ñu bari jàpp nañ ne bu ñu tuddee bànneex rek ñu jàpp ne kërug sawara la war a doon wala luy topp luy luy yóbbu waa ji ca sawara ah mën na nekk waaye nekkul ne bànneex yépp ñoo yóbbu waa sawara waaye ndek am na bànneex yu bëree bëri yooyu waa mën na cee jaar di bànneexu di banamtiku waaye mu yóbbee ko ba mu tàbbi biir aljanna ci ñaari xaqiqa laa koy wax beneen bu njëkk mooy yàlla dénkunu bànneex lu dul ne nañ ci yéeg jëm ci moom mi nga xam ne mooy borom asamaan ak suuf ah. kon déggee nga ci ne bànneex échelle la walla yéegukaay la wala escalier la boo xam ne waa ji daf ciy jaar ngir yéeg jëm ci boromam ak lu mu yéeg yéeg yéeg ba sori sori ngar boromam fa mu nekk kawe ga muy kawe muy benn ñaareel ba yàlla dénkuñu bànneex lu dul ne. mu def ko benn tuyau benn canal boo xam ne ca la ñuy jaaree ngir mën a yegg ci li lislaam santaane ñu jëfee ko nam ko war a jëfe ñu bàyyi xel ne lislaam araamalu dara waaye dafa dabtu lépp lu mën a doon ba pare organiser ko nos ko lislaam araamalu dara mbokk yi su ma ko waxee nga ne ah lu tax mu xaraamal naan sàngara wala dara waaye da koo dapt da koo tanzim da koo da koo nose organiser ko ne lii lii la lii lii la waaye araamalu dara mën nañ ko wax ci waxit jëlal misaal benn li ñu tuddee bëgg nisaaw xanaat la am tiwo la am bu set wicc bu yàlla teg ngir ne ne ci jullit yëpp jaar ba pare am ci bànneex ba pare am ci am ci li ñu tuddee euh, euh, euh, xéewal yu yaatoo yaatoo ëllëg yawmal xiyaama muy lan lan mooy tiwam lan mooy tiwo bëgg jigéen bëgg nisaaw mooy ziwaaj denc yàlla farataal denc ne na ngeen dencante takkante leen amante njaboot yonent bi saa sam damaa bëgg bu ëllëgee bu xeet yëpp dajee sama xeet gën cee bëri tanaakaxu li anna nii euh, xaw ma nu mu ko waxee ci aaya ba ca xadis ba se euh, ukaasirumul umam yowmal xiyaama xaw ma nan la ko waxee ca xadis boobu le damaa bëgg rek su ëllëgee sama xeet yëpp gën a bëri ci xeet kon dencante leen ñett ngi nii yoo xam ne ñetti bët a ngi nii yoo xam ne duñ gis sawara mukk ëllëg yowmal xiyaama bët boo xam ne daa fanaana xool di garder ngir yàlla waxuma garder ngir àdduna mais garde ngir yàlla ci toolu xare wala bañ a nelaw rek di jullee ko naafilaa ko jàng alquran ngir yàlla bët ba set yooyee bët suñ borom nee na du gis mu ko sawara beneen bi bët boo xam ne daa jooy ci di bis bis yi ngir ragal yàlla du gis sawara mukk beneen bi mooy bët boo xam ne daa fegu ci mboolem lu ko yàlla tere du ko def bët boobu tamit du gis mu ko sawara suñ borom moo wax loolu waaye suñ waa suñ yaakaar firndeel na ko bil ayni la tandur li cheyin xaruma bal guddaha anhu takun muxtarama la wax suñ tubaa suñ yaakaar nee na yow bët góorgóorlul ba bul xool mukkatit ci loo xam ne yàlla xaraamal na ko waaye dammal sab gis kotal safaar ci lépp lool suñ borom daa war warmaal loola ne boo ko kenn xool defal loolu mbokk yi benn ngi noonu juróomeelu taklif bi te mooy mu muqawim ba mooy at tashriya mooy li yàlla rëdd nag mooy sharia al islamiyya mooy loi mën nañu wax luwaa ci Sénégal wala ci àdduna boo koy xool ci àdduna muy doxee réew mu nekk ak loi ba fay dox ku jalgati loi ya yoon dal ci sa kaw yàlla yi daa am loi loi bi yàlla rëdd ci jaam ñi benn mu muqawim la boo xam ne dafay dimbale jaam bi ngir mu mën a jëf li ko yàlla sant ci biir loi boobule kon xel fekkente ne bi mooy mooy moom la ñuy xam-xam fitra ñu di ko nattee bakkan fitra ñu di ko nattee bakkan kon sharia al kon nattukaayam mooy ñaar yooyu lay jël moom def ko muy balance day jël nattukaayu xam-xam muy xel jël nattukaayu bakkan te mooy fitra moom tashriya te mooy luwaa suñu borom moom lay jël moom def ko muy nattukaayam kon al aql wal fitra ndax lépp lu baax lu ko baaxal sharia la lépp lu bon lu ko bonal sharia la ñoom ñaar nag bu ñu dëppoowee sam xel dëppoo ak sharia na nga jàpp ne yow yàlla defal na la teraanga ju rëy rëy waaye sam xel bu dëppoowul ak sharia na nga jàpp ne yàlla am na ci yow ay ndigal ay ay duma yooyu mi ngi la ko dig ëllëg yowmal xiyaama wala iyaazu billah alquran moo ñu ko nettali innahu fakkara wa qaddara fa qutila kayfa qaddara ila axiri aaya loolu lay tekki suñu borom nee na euh, adduna bi li tax ma amal ko ngir nga xam yàlla li tax nag ma wàccee sharia al islaamia muy luwaa boobu ngir nga jaamu ko nee na amul benn jaamu yàlla boo xam ne nit dana ko def te jaareewu ko ci luwaa bii ma tëral di ci am sama ngërëm munta nekk kon soo bëggee jegeñ yàlla sunu borom subhanahu wa taala sharia al moo la fay jaarale moo tax mu wax ko ci alquran moom borom bi subhanahu wa taala wa man yutii llaha wa rasulah faqad faada fawzan azima mbokk yi sunu borom nee na képp ku topp yàlla topp ab yonentam nee na victoire ba gën a mag ci àdduna ak ëllëg yomal xiyaam am nga ko mooy góob nga yiw woo xam ne rëy na lool dara toll ni suratul ahzab ay juróom benn bokki juróom-ñaareel bi te mooy bi ci mujj sax ci li ñuy tuddee muqawimaatu taklif mooy euh, xurriyatul ixtiyaar muy juróom-benneel bi yàlla daa may jullit bi mu am liberté ci boppam ngir tànn lu baax waxu ko nag tànnal lu bon sunu borom nee na ci alquran sa yaqulu alladina ashraku law shaa allahu ma ashrakna wala abauna wala xaramna min shay ba aaya ba jeex ci suratul an'am aaya téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett déggal ñooñu rek seenu kàccoor nee nañ yàlla day te ñooñu nga xam ne ñooñu kàccoor yàlla day su ko neexoon nii ñu ko weddee wala nii ñuy bokkaaleeg moom duñ ko def kon yàlla la soob seetal loolu yàlla newul kenn bokkaale ma da koo tere ñoom nag dañu ne bu neexoon yàlla ñun ñii bokkaaleeg moom duñ ko bokkaale bu neexoon yàlla du xaraamal dara dañuy mbaay yàlla kenn ku nekk lu la neex def kon ndax àdduna du tukki kon suñ borom nee na ci alquran wa qaw wa qulil xaq min rabbikum fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur suratul kahfi ay ñaar fukk ak juróom-ñeent suñu borom nee na fi yaa ngi noonu dëgg a ngi nii jógee seen borom jël leen wala ngeen bax kum neex na jël yaa xam kum naqari ba fi loo dajal ëllëg jëlal mu jeex gis nga ndigali suñ borom yi li muy tegtale mooy al ixtiyaar bu suñ borom diglee rek li muy tegtale ci julli bi mooy suñ borom tànn tànnaloo na la lu la tànnaloo nga jëfe waaye tere bu mu la tere tamit lam la ca digal lam la ca tere li muy tegtale mooy lam tere nga ba ko xam ngeen ne borom bi kon su diglee da caa jublu jàmm bi jàmm bi jàmm bi tànn waaye su teree tamit da caa jublu jàmm bi tànn moo tax ñu ne suñu borom bu ñu forcé woon ci nañ ko jàmm forcé nu nañ ko jàmm rek boobaa la batala sawaab boobaa yool daate day mel ni kon jaratul mu du ñu yool comme daf ñu forcé ne nañ def nangam ci force kon boobaa la batala sawaab suñu forcé woon ci mooy yàlla kon tamit la batala la iqaab kon bu boobaa tamit daanaka mbugal jaratul muy am suñu bàyyi woon tamit ñu ñu ne ko max rek noonu amul digle amul tere kon bu boobaa li muy tegtale mooy suñu borom kàttanam daa am lu ci manqué kon moo tax mu digal nu ñu jaamu ko tax yiiran ngir ñu tànn lu baax lu ñu jariñ ëllëg waaye mu terenu ab safaan ngir ñu moytu ko loolu danañu tàbbal ëllëg sawara waaye suñu togguñu dara tamit lu dul ne loola daa yomb waaye tamit togguñu dara lool lu dul ne loola togguñu dara loo xam ne tamit dafa jafe yónniwut benn yónent abasan ngir am po wala ngóog wàccewul benn téere ngir ñu foye ko moo tax dafa am benn waaye bu ñëwoon ci Seydina Omar radiallahu anhu naan sàngara ba ne tatt di kayankaay ngi bu ñëwee naa Ali ne nañ ko xadd nañ ko dóor ti juróom-ñett fukki yar waaja giñ ci yàlla ne ko yow ki nga xam ne yaay jiite jullit ñi na la wóor ne yàlla moo dogal may naan sàngara waaye du sama ji du sama coobare Seydina Omar daal di ko ne daal di ne mbooloo mi dóor leen ko kon euh, euh, téeméer ak juróom-benn fukk maanaam ñaari juróom-ñett fukki yoon ñu ne ko lu tax mu ne juróom-ñett fukki yu ndaw yu njëkk yi mooy li annahu sharibal xamr daa naan sàngara moo tax ñu doo war ko ko door ñu ne ko boobu de leer na beneen bi ci des nag lu tax ñu koy dóor mu ne li annahu iftara ala allah daa waxal yàlla lu nekkul daa duural suñu borom mooy nee na yàlla moo dogal moom muy naan sàngara est ce que yàlla moo nekkoon na naan sàngara moo ko tànnal boppam kon yàlla bu teree dara taxziran la waaye bu diglee dara taxyiran la ci jullit bi daal di ko yaa bon jàppal ne ndigalal yàlla génnewu ca kenn wala digalul kenn ngir mu def ab safaan mbokki loolu lu am solo la lu war xel la juróom-ñaareel mu xaw yim bi muy xaw ma taklif mooy ak zaman mooy bu mujj bi mooy zaman temps mooy dund doomu aadama suñ borom da ko koo may moom doomu aadama pare daytal ko ne ko ci nangam ci ay at lay toll yow téeméeri at ngay dund waaw yow juróom fukki waaw yow juróom benn fukki yaa xam suñu borom moo koy taxdiit waaye wifqa xikmatihi l mutlaqa bi mutaallaqati bil xayri gis nga ko ci coobare suñu borom ak sagesse am yeew xam-xam suñu borom bu rëy ba bu yaatu ba bu ñu bu ñu tàllal ba ba yëmul fenn mooy tax mu daytal doomu aadama bi ci nangami fan ci ngay dund lum ca jublu dundam googu li yakuna hada al um wiaan li amalihi daa bëggoon doomu aadama dundam googu mu doon ndabam booleem bagaanam bi nga xam ne ci lay joo jëfam yu baax yëpp boobu ëllëgee bu ko joowee taajee ci kanam borom bi subhanahu wa taala suñ borom daal di nangu mbooleem jëf yam ca jëf melal ni ku waaju togg aw ñamam ba mu yegg lépp lu ca war a dem mu def ko ca ñam koy taajal bu leen ko taajalee suñ ko ubbee daañu bég mu ne ko nag da watt nag meññetam jege sa borom ci jëf yu baax yi ak di woote lu baax jëm ci sunu borom moo tax suñu borom wàccee saar wa am solo aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim wal asr inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil xaqi wa tawasaw bi sabr imam Shafii nee na nit ñëpp buñ maase woon def tadabbur ci aaya bi wala ci saar bi la kafathum dana leen doy sëkk ndax mbooleem lu aju ci àdduna ak alaxira rek imam Shafii nee na saar boobu doy na ci bu saar woo wàccoon yeneen saar wàccuñu rek doy na jullit bi ngir mu mën cee jàpp ngir mën a tabax addunaam waaye tabax ëllëgam lu tax suñ borom moo giñ ci mutlaqu zaman te mooy al asr lu ci giñ ne doomu aadama yëpp dañoo perte ci xaqiqa te xaqiqa boobu mooy zaman ni ñoom ñu perte nañ waaye mu am ñum ca seetee nag ci perte ga googu muy ñi nga xamante ne bii dañoo gëm seen boroom tey jëf-jëf yu baax tey dénkante dëgg te yàlla tax waaye tamit tey dénkante ngémbew muñ ñeent ñi benn bu ci nekk boo ko jëloon di ci wax mën nga cee fanaan li tax saar bi am solo muy axlaaqiyaat yi ci nekk mooy al imaanu billaahi xaqiqatan al amalu saalix te ku képp ku am victoire ëllëg yaa ngi ko jaaree ci al amalu saalix mooy fas naari góor yi ñuy war mu di leen cëppeel aljanna ci amalu saalixaat lay jógee dénkante dëgg kazalika asabru kazalika mbokk yi kon insaan mooy maxluqun mukarram mooy maxluqun mukallaf mooy maxluqun mukallaf bil ibada ñoo ngi leen di dox dox tey incha allah ci yeneen waxtaan ci yeneen tem salaamun minallaahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatu تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا